Thank you. salaamaaleykum mbokki Tafis si salaamaaleykum mbokk yi seetaan seen émission naar góor tey ñu am euh, troisième journée fii si hippodrome El Hadj Diop Macoumba borom ñoo nekk plus de trois ans yi mooy mu dem ñetti at deuxième course bi plus de deux ans ñoom ñoo koy daw. troisième course bi groupe euh, trois ñoom ñoo koy daw euh, mooy naar yi cinquième course bi groupe ñoo koy daw tey loolu lañ fi am. waaye ñuy gërëm bu baax baax ñi xamante ni ñoo ne seetaan ñëpp. dina ki nga xamante ni suñu xam ne suñu wëllëg di di liggéey liggéey bu am di jàppale président Macky Sall ci biir réew mi ak bitim réew yëpp ñu koy nuyu bu baax di ko ndokkeel di ko wax ni tey jii ci émission naaru góor lépp moom lañ ko may ndaxte wax dëgg yàlla dafa nekk nit koo xam si ne kuy jàppale émission naaru góor la kuy jàpp ci émission naaru góor moo tax tey daal émission bi lu ñu émission rek tey Pape Mour Fall directeur emploi Pape dëgg moo wóor Pape Mour Fall mi ñu jàpp son exemple c'est Macky Sall te xaaru ci dara vraiment comme tey moom la ñuy am honoré suñu émission bi ni mu Moustapha Bao Mame Diarra Bao Musala Baawo tarkala Maam Dia Maam Diarra Baawo taar fa kala masala bu abaa Père Mbaye Baawo di ko nuyu bu baax a baax di ko ndokkeel di ko ziar bu baax a baax ci sëy bu bees bi nga xamante ni dugg si nañ di ko ci ñaan yàlla yàlla may ko ci njaboot bu barkeel a barkeel la waaye di nuyu di jëneex soos di jëneex soos maa ngi lay nuyu bu baax a baax ay ci ñu def ci troisième journée ak xaalis Cissé gars yi jug nañu jug nañu trois ans yi jug nañu tey dimanche le 12 février fii si hippodrome El Hadj Kër Diop borom gañaay yi premier course ba ngoog les trois ans yi ñoo génn dafa mel ni Diofior moo génn ar arsident ñëw na ànd ak teg accident ñëw na àndanteeg Diofior accident àndanteeg Diofior accident ñëw na Omar Bawo génn génn waaye Omar Bawo nag ki nga xamante ne mooy deuxième position mooy ki nga xamante ne mooy leader leader yi ñëw euh, deuxième position àndanteeg Ndayanta Ndayanta jóge Louga la ñëw. leader jege si na leader ñëw na ci kanam leader ñëw na ci kanam Baye Bara Diène ñëw na leader Baye Bara Diène ñu ngi dayante leader Baye Bara Diène dayanta leader Baye Bara Diène dayanta leader ak Baye Bara Diène ñu ngi dayante leader ak Baye Bara Diène ñu ngi dayante leader dem na leader génn na leader génn na leader génn na position Omar Bao leader nekk ci kanam leader nekk ci kanam leader génn na mais leader daal na ci laa ilaaha illallah kan moo génn Biti Bao kan Biti ma Baye Baar génn mel ni mu Omar Bawo ak Baye Bara Diène ñoo ci kanam Omar Bawo bay Bara Diène écurie Lambaval ñoo nekk ci kanam écurie Lambaval ñoom ñoo nekk ci kanam la ilaha illallah attention les is ñi ngi ci kanam bu ñoo tekki ñi ngi ci kanam bu ñoo tekki attention les is ñi ngi ci kanam dafa mel ni Biti Madior Biti Madior nekk ci Biti Madior la Biti Madior numéro 9 la numéro le reine numéro le reine de Sabala le reine de Sabala la reine de Sabala deuxième nekk ki nga xamante mooy numéro 13 nekk Diofior troisième numéro nekk numéro 12 la ilaha illallah tegloo bi métti na tegloo bi métti na soog bi gaañu na. oh li leen gaañu na li leen gaañu na gaañu métti saa yu jug nañu jug nañu deux cent yi jug nañu ñoom ñu nekk mooy ab ñaari at ñu war ci distance bi deux cent mètres jug nañu kan moo génn gaay rajo Diop bi bari na rajo Diop bi bari na kan moo génn numéro deux bi génn nekk ki nga xamante ne mooy Moubarak deuxième position nekk numéro 18 nekk ki nga xamante ni Washington Washington numéro 2 bi moo gën nekk Moubarak Washington troisième position gars yi def nañ fa benn tànk 2200 mètres la ku génn boo xawee yaay jekk si Moubarak a génn Moubarak dafa mel ni moo jógee la saint parce que kasaak bi rouge blanc la waa ma baata njug la position laa ilaaha illallaah mais fas yi mën naa daw de fas bi naa daw Moubarak mën naa daw Moubarak mën naa daw Moubarak Tonton Bassirou mu nekk troisième position moo fa nekk mooy Weston laay laal ñu ngi doon ci des samit bi ñu ngi doon jëm si des samit bi ñooy tekki fas bi mën naa daw famille ñuk ñuk am na fas bu mën a daw 200 bi mën naa daw tarkal la génn ba teer mën naa daw mu baarak la mi ngi si kanam bu ñëwee day tekki fas bi mën na daw fas bi mën na daw mu baarak la mu baarak la premier numéro 2 mu baarak attention les 10 pour deuxième attention les 10 deuxième numéro 10 nekk Tonton Basirou troisième numéro 4 nekk ki nga xamante ni mooy mooy troisième mooy Tonton Basirou quatrième bi mooy numéro 10 bi nekk ki nga xamante ni deuxième bi mooy numéro 10 bi nekk ki nga xamante mooy Weston. nañu jug nañu jug nañu jug nañu jug nañu jug nañu ñooñu ñoo nekk groupe 3 war daw ci distance su 2200 mètres fas bi c'est le favori numéro 1 bi nekk ki nga xamante ne mooy Zarak Zarak génn na numéro 10 bi 10 bi ñëw na deuxième position nekk ki nga xamante ne mooy Ania Aïcha Ania Aïcha Ania Aïcha gars yi def nañu benn tànk tool fa kala masal Linguère Maguette mi ngi ci biir Linguère Yacine mi ngi ci biir Lawrano mi ngi ci biir. ndigal mi ngi ci biir kari mi ngi ci biir mbisooli mi ngi ci biir awa seer dëggantewoon mi ngi ci biir xaatim mi ci biir ndigal ñëw na sixième position El Capo mi ngi ci biir moo leen rawoon dimanche bi ñu génn président mi ngi ci biir Baraka Baraka de mi ngi ci biir Altaay mi ngi ci biir laa daa mel ni kii ñëw ndigal la de gars yi ñu ngi daw xel yu am am solo 2200 mètres may Amina Aïcha moo nekk premier possion deuxième position Altaï moo nekk quatrième position cinquième position gars yi defuñu fa benn tànk tuuti waaye Altaï moo nekk moo nekk deuxième position ñëw na ci kaw raw Rawrado Altaï Rawrado nekk ñu benn fas gars yi defuñu benn tànk ci kanam ñu ngi noon ci 200 mètres bu ñëwee day dellu Altaï Rawrado ñoo jiite fas yi attention attention ba leen gën a gaañu lii baaxul lii baaxul lii baaxul bu leen gaañante bu gaañante ki ñëw ci kanam nii kan la numéro 9 bi la nekk ki nga xamante ni mooy xaatim xaatim ma ci kanam xaatim xaatim ñëw na waaye xaatim ñëw na kanam waaye laaw raado na ba léegi ñëw na xaatima ci kanam xaatima nekk ci kanam xaatima nekk ci kanam laa ilaaha illallah xaatim xaatim gaay dal ci kaw waay bañ na xaatim gaay dal ci kaw waay bañ na xaatim daa mel ni li muy def mën na ko xaatim daa mel ni li def mën na ko xaatim bañ na kuñu ñu dawal ne sa kaw ku ñu dawal sa kaw El Capo El Capo lañ dawal El Capo bu Moustapha El Capo lañu dawal El Katim El Capo El Capo El Capo El Capo Khatim attention El Capo Khatim El Capo Khatim El Capo Khatim El Capo Khatim Khatim El Capo Khatim ñu ngi ci des samel bi bu ñëwee day tekki El Capo Khadim El Capo Khadim El Capo Khadim attention les is attention les is attention les is attention les is attention les is attention premier Khadim deuxième El Capo troisième numéro 2 nekk ki nga xamante ne mooy Linguère Maguette quatrième numéro 1 nekk Zarak noonu la course bi demee. kursu bi rëy na suñu naa la. donc ñu dawal trois journée kenn ku ne gis na ni fee yaa nekk. daan saytu wérgu yaramu fas yi tey nan nga gis suñ troisième journée ni ñu ak temps yi tey gis nga fas bi fi gaañu lan nga ciy wax. Eh, d' abord maa ngi euh, mooy sama première journée may euh, profité félicité président Cheikh bi nga xam ne def nañ ko tegaat nañ ko kaw waa CNG di ko féliciter di féliciter tous les membres du CNG ci turu ministre de l'élevage ah di leen ñaanal ñaanal acteurs yëpp atum jàmm euh, réussite ci euh, kii bi euh, ni koy gisee rek ministre de l'élevage depuis des années xam nga ne ñu course maanaam c'est la moo tax bu ma gisee euh, fas di euh, am jafe-jafe xam ngeen ne daanu man maa ne nekk si biir ma nekkoon dama bëggoon a jox dem euh, ci biir mais xoolu naa ñoom poli nag ñoo ñëpp ñu nekk si biir xam naa ne def nañ liggéey bu ñu si waroon ñu jokkoo ci maanaam liggéey bu ñu def ñun ñëpp ma leen di félicité nag ci bu métti gis ne euh, propriétaire yi aussi ci investissement yi ñuy def euh, ak yooyu yëpp quoi. tey troisième journée noo ko noo ko jàngatee. ah rafetlu ko rek vraiment guddi bi neex na am na ambiance fas daw nañu barkalla macha allah dañuy neex na waaw jërëjëf. waaw maa ngi sant Mbaye. troisième journée tey. waaw ñoo ngi sant yàlla bu baax di kontaan di ñaan aussi nañ defoon daaw gi ñu defal ko ca Mbacke Bor. ñoo ngi waaj bu baax a baax a baax ma ñëw. non ñu ngi waaj lu dee. am nañu gàllankoor meer. waaw ñu ngi waaj lu dee lee leen ñu ngi waaj waaw da nga ñëw. waaw course bu neex la course course groupe 3 bi neex na trop ça a été très discuté euh, trois ans bu déclassé moom moo leen raw war na leen mën a raw aussi moo xëy El Capo ñu doon xëccoo yow ba ci 200 bi finalement moom mu raw leen. ok. Mbaye daa mel ni ngi kaas wala kaas Mbaye. amuñu ne ay rawante mais gars bu ñu yàq suñu kott bu ñuy ñëw dañuy ñëw bu suñu ko xamee woon. da ñëw indi sa benn fas daw bu ñu a rawee nga ñëm ñibbi. ñëw nii en groupe yi di yàqu ci bi ñi ñuy ñi ñuy dëkkal fu ñu dëkkul moo dul logique moo tax ma wàcc di wax ak commissaire bi wax benn fas benn nit ñu dugg ñu rawante ñu ñibbi ñoo bokk ayca jërë ngeen jëf mbokk yi c'est quatrième course bi nag moo nekk noonu mooy course naaru góor yi nag course bi am na enjeu lan moo war a bi parce que naaru góor yi nga xamante ni ay favori yëpp tey dañoo génn génn nañu tey lii bu doon grand prix la du weesu lii ñoo fi ne ay trois ans rek ñoo ciy dooleeku ak yeneen groupe yi mais lii ñooy crème bi nga xamante ni moom lañu wax boo ba léegi naan course hippique rawante course ñii ñoo tax ñuy wax rawante course hippique ndax ñooy naan góor ci diggante ki nga xamante ni mooy Maguette Diop Ngoné Latir Dieyna Auguste Medina. Daaru Sam Daaru moo nekk Sam Taïf Lat Fatim Daara Khoudoss Expert Salimar Mirouax Amina Ouma Maxa Ndiouga Altay ak Major. ñu nekk 17 partants war daw ci distance su 2200 mètres ci diggante ki nga xamante ni mooy écrit réuni bu euh, professeur Sakhi Thiam écrit Adja Diop ak écrit ni moo ci bokk ki nga xamante ni mooy écrit bi nga xamante ni moo jógee écrit bi nga xamante ni Tarkala macha allah euh, euh, Almaktoum bu Kër Madaro loolu tey mu nekk naar ko yi nga xamante ne ñoo nekk suñu ginnaaw nekk enjeu nag enjeu nag bu mag a mag a jekk nañu gars yi nañu naaru góor yi jug nañu tey dimanche le 12 fii ci poteau bi laaj ko Diop expert génn na expert jëy na expert jëy na expert jëy na Daaru Xudoos expert jëy na numéro 7 bi ñëw na nekk ki nga xamante ni mooy Taïf Taïf bu sëñ Xaadim Mbàkke ñëw na. tey fu sëñ Xaadim Mbàkke ñëw na seen biir expert ñëw na Jeyna tayif dem na ci kanam tayif Jeyna expert tayif Jeyna expert ñoo nekk ci kanam waaye Maguette Diop a ngi ci biir Ngoy Latina ngi ci biir Auguste mi ngi ci biir Medina mi ngi ci biir Daaru Sam mi ngi ci biir Lat Fati ngi ci biir Salimane mi ci biir Mirwax mi ngi ci biir Amina Ouma mi ngi ci biir Maxa Fall mi ci biir Juga Fall mi ngi ci biir Al Tay mi ngi ci Al Fat mi ngi ci biir Masal mi ngi ci biir. Ndeysaan tey fa nekk ci kanam na ak Super ñëw na gars yi ci kanam Dieyna ñëw na gars yaa ngi def njaamum golo. gaa yaa ngi def njaagum golo gaa yaa ngi def njaagum golo Daaru Xudoos yoona ci kanam Daaru Xudoos yoona ci kanam attention cey mbay bi course lii mbete grand prix chef d'état grand prix chef d'état mbete grand prix chef d'état Daaru Xudoos yoona ci kanam Daaru Xudoos jëy na Daaru Xudoos jëy naa Amina Ouma jege si na Amina Ouma ngi ci arage bi Daaru Sam Amina Ouma ngi ci arage bi waaye ba léegi expert ñëw na ci kanam expert génn ci kanam expert génn ci kanam expert dem na expert dem na expert dawa nañoo gis ci arrêt bi gis dawa nañ Daaru Xudoos dawa nañ Daaru Xudoos expert Daaru Xudoos expert Daaru Xudoos expert Daaru Xudoos expert Daaru Xudoos expert Daaru gis dawa nañoo gis gis dawa nañoo dawal nañu gis dawal nañu gis expert gi ca léegi expert gi ci kanam expert daal xudoos expert gi ci kanam expert gi ci kanam expert expert gi ci kanam expert expert expert expert premier expert deuxième daal xudoos droite ñoo gis Exibet Daaru Xudoos Exibet Daaru Xudoos Exibet Daaru Xudoos jërë ngeen jëf mbokk yi doon seetaan ñu dem ci rubrique boobu nga xamante ni moom la ñuy wax parce que ay xeexoo ki xuloo yéen ñi nga xamante ne supporter yéen a yàq course hippique dañu bàyyi li ñuy mbokk yi seetaan seen émission jur gi ci télévision Futurs Médias ak seen mbokk seen xarit Madiame Mbaye Pekh jëwaat naa ci beneen bergerie bergerie bi nag mooy bergerie sopp xaadim sopp nag euh, euh, tey ñoom tamit dañu ñëw exposé ci foire bi nga xamante ni moo am fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar euh, sëñ bi nuyu naa la. maa lay fay jërëjëf bi naka la man Mass Ndiaye la. Mass Ndiaye Mass Ndiaye bergerie sopp xaadim tey lan moo waral bergerie sopp xaadim waaw ah, bés bés soobu xaadim dafa nekk bés boo xam ne ay xale ko yor mhm. ku ci mel ni bàcc ndaw ak xaadim mhm. nekk ay xale yu nangoo liggéey ba pare bëgg xar mhm. waaw yaa ngi a xam dudd si xar tamit ba pare xam xar tey soo ma doon wax li nga xamante ni moom ngeen exposé fii tey ci foire bi euh, yan xar nga yan nan nga may présenté waaw fii am nañ fi ay doomu kabir muy muy añel muy yi nga xam ne dañuy doo a tëbu femelle bi waaw añal la doomu kan la doomu Kabir la. Mhm. yaa ji di doomu Karbaxaal Karbaxaal doomu Cheikh Anta. doomu Ado. mu mhm. nekk ni Kabir di doomu Roi Bachir. Mhm. yaa ji doomu Elias Elias Koromak. maal bi nag. ah maal bi. suñu benn grand bu baax bu ñu wax Siré Jakite moo ñu ko jox. Siré Jakite moom laa jógee place am léegi nii ñëw ñu koy nuyu de passage. di waaj bu baax. joñu xar bi ak yéene xar bi di doomu abo doom ji magistrat yaa doomu Bachir ci côté yaayam yaa ji doomu awo biko la magistrat la waaw doomu awo biko di doomu Kirène moom moo nekk nii moo nekk mal bi mu nekk mal bu woo xam si ne moom tamit euh, euh, ci kii yi la bokk de ndaanaan yi la bokk mi ci mi ci vingt et un mois quoi nga rek woon moo tax mais waaw incha allah maa jox rendez-vous yeneen fois rek bu neexee yàlla. incha allah léegi à partir yan femelle nga may joxaat fii dafa mel ni yeneen femelle ñu ngi faat faat. Mhm. mooy Nova. Mhm. ki mooy kan. Nova di cent pour cent Cheikh la. 100 ah, pour cent mu si bokkee. Euh, yaay ji. Mhm. doomu Carbaxal la. papa ji tamit doomu Carbaxal sans la quoi. mu nekk sans fixé. du maal bu ndaw bi kan la maal bu ndaw bi. ki mooy Thione Seck. Thione Seck. ki mooy Thione Seck. ndeysaan dem moom nga ko tuddee. waaw moom la ko tuddee. di doomu Kabir. doomu Kabir. incha ñaata moo la am. moom mi ngi ci deux mois dugg na ci deux ah, di sët kii mooy ndeyam. di sëti nation. xel comme Abdou Fall Assane Dëb bi yëpp ñambaas yaa am gën a xam Roi Bachir. waaw moo nekk nii. yaa ji kan la. sëtu nation la. ci côté ci côté Badji. Abdou Fall gi la ak xel koom xalaas. ñoo ko seq quoi. mais ndaanaan dëgg la mi ngi ci bi ma mboolem bi moo deuxième problème nii. waaw ndaanaan la de. am na ci moom yaakaar nag incha allah. lan wax ci foire bi nga xamante ni moom la ñu organisé fii tey ngeen ñëw exposé. waaw dëgg fa yàlla foire bi neex na moom neex na trop neex na trop moom bu ñu seyoon du jeex waa bu ñu seyoon moom du jeex. lan moo leen dugal ci xar. bëgg-bëgg rek si bëgg-bëgg moo ñëpp doole. moo tax ñu ne ci xar yi ba léegi xam nga yàlla ku ne day natoo sa bëgg-bëgg foofu rek boo ñu woowee rek ñu jël si la. numéro téléphone 77 la 965 32 32. ay millions yu bari yoo xam si ne da ngeen koy xar ko jëlee. ah ñu ngi si gis suñu boobu de ñu naan café de. Hmm. ñu naan café bu baax. Eh, eh. gën nga naan ay di di def meew ak yaa a xam. yow ay millions ngay naan café. ñu bu baax ñu ngi ciy gis waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. bu baax a baax say. mel da am plaisir xar la. waaw dama bëgg xar nag dama bëgg xar trop. dama bëgg xar trop. di ñaanal sama gannaaw bàcc yàlla baax ko ba si kanam. waaju baax la yaa gën a xam borom baax di ñaanal lépp lu mu séntu si élevage am rek yàlla defal ko bu soobee suñu borom. jërëjëf ñu ngi noonu ci bergerie euh, sopp sopp sopp sopp xaadim euh, nekk foofu ca fa nga xamante ne mooy rond-point mais tey ñu ñëw fii nag exposé fii ci foire Thiès nekk loo xam si ne lu amam solo euh, tarfakal masala borom bergerie bi di doomu nday ki nga xamante ni mooy Pape Ndiaye mu boole maag moom mu ñëw fii ci bergerie bi tourné ko ci émission bi nga xamante ni mooy émission jur gi vraiment ñu kontaan ci bu baax baax ci élevage bi nga xamante ni moom la fi def.